sunu bës TV. Ousmane dinaa la dénk ñaari baat ba ñett. jërë ngeen jëf mbokk yi def naa ni kàddu googu xàmmee ngeen ko danañ ci ñëw léegi ci ay yaatal gannaaw nag euh, moom milee di xalifa Sall ba mu demoon foofale ca France 24 ñi invité woon ko ak RFI doon ko laajee ci situation réew mi et cetera. moom nag euh, gannaaw ba ñu ko laajee ba àgg ci mbir mbirum Ousmane Sonko dafa dafa dafa dafa ci gàttal dafa nangut a tudd rek turu Ousmane Sonko loolu lii nag daal di jur polémique moom daal bokk na ci lam laayee mooy baaxawut daal di tudd turu nit et cetera yu mel noonu. waaye nag euh, loolu ñu dañ ci am beneen gis-gis ak beneen taxaw seetlu boole kaak nag kàddu yi nga xamante ni ma sees naa digg Pape Alé waxoon ko Ousmane Sonko te mu nekk ay kàddu yu am solo. yoo xamante ni yu jar bàyyi xel la yu jaroon a bàyyi xel ci jamono bu mu koy wax la te jamono jii nag ñu tàmbalee gis kàddu ya nga xamante ni Pape Alé waxoon na ko mu nekk loo xamante ni moom mooy li am mooy réalité. loolu dinañ ci dikk dégtal leen vidéo ba nga xamante ni moom Pape Alé defoon na ko. gan avant loolu damay ñëw ci mbirum Birame Souleye Diop xam ngeen ni ci suba waxoon naa leen ko moom Birame Souleye dañu ko woo woowoon foofule ca sûreté urbaine. la waral ñu daal di woon nag kàddu yu mu yëkkati tekk ci kaw président Sall loolu lee moom moo waral ñu daal woon naam moom daal di ñuy génn jéggalu askan wi. xam ne loolu yi ab rëcc rëcc la boo xam dab na ko bokk na nag ci la nga xamante ni siiwal na moom la waxoon moom biram su lay Diop. mooy ña nga xamante ni daal ñoo fare ci APR ñi maytandiku kii di président Sall ñi bàyyi xel mën naa def la nga xamante ni moom la Ouattara defoon muy wax ni du def troisième mandat ba pare ni dina ko def loolu li nag dafa am lu ñu ci yokk muy moom Birame Souleye dafa ni kii di président Sall daal na ñu maytandiku mën na mën mën na leen a ci gàttal ni ma ko mën a euh, tënkee pour ngeen mën a comprendre Euh, loolu li daal bokk na ci la nga xamante ni këru taskaayu xabaar yi kon xëyee nañ ko tey moom biram su lay Diop ñu woolu ko foofu foofule ca sûreté urbaine gannaaw kàddu yi li nga xamante ni yëkkati na ko naam moom nag génn na jéggalu moom biram su lay Diop. kon dañuy dem ci vidéo bi ma leen dindi wax rek soxal mbirum euh, Ousmane Sonko ak journaliste Dakar Matin bile di Pape Alé kàddu yi nga xamante ni yëkkee woon na ko te mu nekk loo xamante ni warees na ko bàyyi xel bu baax a baax. sunu bës TV. que ñoom bu ñu la ñu mais loolu mbiru at la def nekk président de la république Macky Sall ba mu nekk directeur Petrosen ku ko waxoon na ko yaay doon président de la république sëriñ ku njëkk wax. am compte Serigne Macky Sall na ko yow doo bàyyi Serigne sunu bës TV sunu bës TV. xam nañ ne yàlla def nga doon un phénomène un phénomène xale yi bëggal seen bopp ñu ne su ma langaamuwul ci Ousmane dem su ma langaamuwul ci Ousmane dem. Buzz TV. ma lay dénkaane dénkaane yoo xam ne sunu Buzz TV. parce que ñu bëri xamoo leen en fait en réalité ñu bëri xamoo leen yow xamoo leen man xam naa lu baax lu may wax kon waajalal sa bopp waajal say ambition waajal sa parti jëlaat sa parti. ci ñu bëri nag li ñuy wax yëpp ba seen bëti di bëgg na xale bi te loolu mbiru yàlla la loolu mbiru yàlla kenn xamul moo koy personne ne peut l'expliquer sunu Buzz TV nangu ci fu mbooloo daje Ousmane taxaw na na Ousmane ok mbokk yi ñoo ko déggandoo euh, révélation yi nga xamante ni Pape Alé defoon na ko ay fan ca gannaaw defe naa ni ku ko suivre ku ko doon topp lii xew nii yëpp dara du la ci bett moo tax ñu ñu yu bëree bari buy faral di xew duñ bett en tout cas lu bëree bari Pape Alé defoon na ci révélation avant muy ñëw te ni mu ko ni mu ko waxee woon. révélation yi mu si joxewoon tamit noonu su koy gisee moo tax yii di am nii daanaka bu mu nekk loo xamante ni da leen di day bette wala bu mu nekk loo xamante ni itam euh, day mette kon gars yi mi nga ko di leen jaajëfal ba beneen vidéo incha allah. sunu bés TV.